mais bëggoon naa am sa avis ci débat boobu noonu. Hmm. bëggoon naa ci am sa loolu ma leeral ko. il était de l'équipe ci ci ci ci ci assemblée laa ko. xam donc li Ousmane Sonko accusé chaque ñi fi nekkoon Cheikh Diba mënu ci bañ a génn. mais budget yi ñuy def yëpp mu ngi wetu. Euh, Cheikh nu mu tudd Moustapha Ba Moustapha Ba. Mhm. avant ça ministre yi ko précédé mu ngi toog di yor kayit yi moo doon yor kayit yi di yor ordinateur yi di manipuler moom mii Cheikh Diba. mais nee nañ sa mission elle est juste technique. mais le technicien c'est lui qui donne les chiffres c'est pas le ministre qui donne les chiffres même bu la ministre bi di wax même bu ministre bi ne truqué leen chiffres yi moom mooy dugal chiffre truqué yi techniciens yi ñooy dem di de truqué chiffres yi ba mu nuroog <laughs> la réalité bàyyi leen Sénégal bàyyi nañu bàyyi jàpp sénégal yi que dañuy nelaw tey jii nii yow mii nii yow da nga ñëw rek toog ci li ma gis de da nga ñëw rek toog ci ce plateau. Mm-hmm. Euh, kii technicien bi. di lumière yi son bi lumière bi son yi technicien. yow nag dañuy ne sa émission la. sans ñoom émission bi du nekk. mais boo paree da nga leen di remercier sans ñoom mais technicien yi ñoom ñooy def chiffres yi balance yi ba mu nuroog lu mën a nekk dëgg. Euh, gis ngeen Abdoulaye Daouda Diallo wala euh, Amadou Ba wala keneen nekk. Mm-hmm. chiffres yi et cetera des tableaux extrêmement compliqués l'économétrie d'un pays alors. pour nous dire quoi. pour dire que bu fekkee ni ministère des finances yëpp raxasuñu leen arrêté les techniciens yu doon truquer chiffres yooyu mooy man bu ma nekkoon banque Bloomberg wala agence de Moody's damay ne la l'administration sénégalaise est corrompue elle truque les chiffres donc c'est un pays à risque parce que c'est pas le premier ministre qui va changer mmh. les mm-hmm. c'est pas le ministre des finances qui va changer les chiffres mmh. <laughs> bon donc muy benn ñaar yow toog nga six mois septième mois waxu ko fi fenn lu leer luy dal xel ni fii laa jëme réew mi tegu ko fi dara lu leer difficulté boo am nga ne même bu nawet bi yàlla tawee te ñëpp doon xaar nawet yàlla taw te ñu dénk la réew mi nga ne nawet mii kat du sama nawet mhm. waaw même ndox mi donc Macky Sall la <laughs> finance publique Macky Sall mais exercer nga état on peut comprendre ça aussi. que li fi xewoon mooy continuer di feeñ ba tey répétition yi. bien sûr man dama dama mhm. dama dama d'accord ni que la situation est difficile. mais man dama dama xam ni bu ma ñëwoon jour ji premier jour bi lii laay def deuxième jour lii laay def je me mets au travail immédiatement ils étaient mais anne bi dañ ko perte Sénégal c'est une année blanche comme je dis souvent. parce que depuis octobre depuis ñu commencé tàmbale parrainage yeeg dépôt mhm. liste yeeg kii deux mille pour élection présidentielle bi ba décembre prochain ñu ngi entre des élections wala nommé administration ministre yi DG yi DAGE yi et cetera ñii di remplacer ñii le temps que ñuy jàng euh, élection législative mhm. dissoudre assemblée ñu ñu ngi ci politique sama gars yi leen la ñu mën te war nañ leen ko nangul politique mais réew politique yoru ko xam-xam moo ko yor xarañ sérieux di liggéey mais politique moom mun nañ ko mais politique c'est pas ça qui va faire croître l'économie du pays. Mais